asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen na ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show comme ni ma koy faral di waxee chaque fois gars yi yi ñëw wax si li nga xam ni tout récemment amaat na xewaat na ah mooy li nga xam ne mooy euh, dispute entre Jamra ak ñi nga xam ne ñoo di waa Marodi TV si maîtresse d'un homme marié j'ai vu que nag ciblé nañ ko carrément carrément néanmoins que ni moom joxe na ay exemples yoo xam ni peut-être. Euh, ça n'a rien à voir parce que boo xoolee euh, série yu bëri yi nga xam ni moom la ñu doon teg Sénégal li maîtresse di dawal wax dëgg fa yàlla bokk la li nga xam ne moom mooy saaga ndey naan dégg si seen TV loolu moom on peut dire que ni c'est exagéré mais parce que fii nii déggoo fi benn maîtresse de nommé kenn saaga même bu fekkee dafa saaga sax doo ko dégg clairement nit ñi saaga ko ok mais nag dañuy comprendre nag sénégalais il faut ñu comprendre benn affaire soit dañuy bëgg li nga xam ne mooy réalité yi bu ñu fekkee dañuy évoquer wala dañuy euh, euh, dénoncer li xam ne moom mooy réalité sénégalaise yi lépp loo xam ne mu ngi loo xam ne mu ngi si yeneen série yi loolu moo nekk di daw keroog rek Even Pro tam amoon na si problème si li nga xam ne mooy affaire de sëriñ yi sans pourtant attendre xool lan mooy waaj a xew gars yi attaqué nañ ko fi taf taf léegi man dama am benn question boo xam ne moom laa bëggoon laaj sénégalais yi mooy waa Jamra waa Jamra ñoom ban autorité la ñu am parce que man comprendre gu ma ko quoi ba nit di dugal série wala télé di dawal série ñoom ñu ne ñoom ñoom ñoo koy ñooy effacé wala ñoom ñooy porter plainte kan moo leen yónni parce que man je crois que ni yi ñu ngi seetaan série yi. ñi nga xam ne bëgg nañ seetaan série yi ñun instant ni bu ñu organiser woon suñu comité ànd dem seetaan série Sénégal yépp waaw ànd jàppale série Sénégal yi xam nga kon ñun tam mën nañ porter plainte waa Jamra mi nga xam ni moom dafa bëgg yàq li nga xam ne ñun moom lañu bëgg parce que loolu mooy droit de l'homme ku nekk am nga sa liberté d'expression léegi nag man je crois que ni solution bi lenn la mooy waa Marodi bu ñu defati film nañ def moins de 16 ans jëm kaw mu lay leer ni ku am 16 ans Sénégal mag nga dootoo xale parce que sénégalais yi ñu ngi may ay xale yi 13 ans ñu ngi dem sëyi kon ça veut dire que ni 13 ans jëm 16 ans ay mag lañ nekkatuñu ay xale parce que ku jël sa doom ah may ko à l'âge de 13 ans war ngaa mën a nangu ñu tegal film yoo xam ni film mag la parce que pour ñun Sénégal 13 ans mooy mag te moom na ñun xam nañ ni mu demee bébé la mooy nouveau-né enfant adolescent adulte adulte nag après si la ñoom vieillard nekk ay demi kon saa veut dire am na yenn yoo xam ni jarul ñuy nekk fii nii di si polémique ba ku si nekk man je sais pas nag en certain moment dafa mel nekkatul lenn loo xam ni ñoom dañ ko bëgg a xeex wala dafa nekk loo xam ni dañu am problème ak ak ak film boobu noonu et tu peux pas me répondre naan ah kon xam ngeen ne bon na nañ ko seetaan mais nit ki bu bëggee seetaan lu bon ku nekk ak yàlla la après ku nekk yàlla la après fii nit lu mu fi lu waaye def boppam.

lu leen di déranger ngeen bañ ko def ngeen bañ bu ma nee lii neexuma du ma ko seetaan mais c'est pas à vous de dire que dañ koy effacer wala c'est à vous c'est à vous de dire que ni da ngeen di porter plainte kat moo leen yónni parce que je crois que ni comité bi nekkaloo leen fi sénégalais parce que ñu ngi bëgg a seetaan xam ne moo di série il faut ngeen comprendre benn affaire chaque jour dañuy toog di évoquer yenn yenn questions yi ci plateau télé yi naan musique Sénégal lu tax doxul wala cinéma Sénégal lu tax doxul. mais le problème mooy li nga xam ne moom mooy critique yoo xam ni dañuy bëgg a jël islam par force dugal ko ci série yi lépp lu ñu wax rek ñu ne islaam lépp lu ñu wax rek ñu ne islam sëriñ yi taraxa yi sonn nañ taraxa diine yi sonn nañ ku am baat loo wax rek nga ne nga waaw ah kii de baax na taalibe sëriñ su Tuubaa la ah kii de baax na wax dëgg fa yàlla taalibe cheikh la moo tax ma bëgg ko maanaam ñu bëri defatuñu dara ndax dañ si aay wala defatuñu dara ndax gëm bi mais dañuy def dara pour pour ñu gëm la rek il faut nga wone ni yow il faut nga fësal ni murit nga wala nga fësal ni tijaan nga wala nga fësal ni ñeseen nga nit ki li nga xam ne moom mooy sa foi li yàlla wax yow yaa ko xam moom moom ku fii ku fi nekk sa dund yaag yàlla la waa Jamra du ñu gungee kenn bu ñuy dem du ñu plaidel kenn sa côté yàlla fii ku fi def lu waaye def boppam lu waay def laa la wax boppam solution bi yomb na moins de 13 ans moins de 16 ans moins de 18 ans point wala nga jël ay ay couleurs yi y a vert nga xam ne ñëpp mën nañ ko seetaan jaune nga xam ne adolescent yi jëm kaw rouge nga xam ne mag rek ñoo ko mën a seetaan nga def benn point yéen tam Marodi boo leen loolu lu mu leen di yàqal temps bi ngeen di jël di def li nga xam ni moom mooy montage yi mën ngeen si dugal moyen j'ai vu que ni Even Pro commencé na ko def parce que tamit yenn yi bëgg problème la quoi benn instant. fii ku fi nekkee taala liberté d'expression mën nga wax lu la neex mais da nga teg si lu leer en tout cas man je suis contre li nga xam ne moo di Jamra man maa ko wax je contre fii kenn pervertiru fi kenn les gens se regardent Kardashian les gens se regardent li nga xam moo di Lil Wayne ñun ñëpp dañ koy dem xool ñun du Marodi moo ñu mën a pervertir wala li nga xam mooy cinéma Sénégal kenn mënuñu si pervertir ku si yar sa doom si ni nga ko yaree je crois que sa doom du mës a dëng bu ñu ko doon tegal sax ay affaire de seytaane sax du ko mës a dëng am na ñoo xam ñu ngi baax ba léegi am na ñoo xam ñu ngi jub ba léegi mais seen yoon nekkul si yenn yi détails yi ngeen di jël sëriñ yeeg di dugal si lu ne ngeen bëgg a dugal si sëriñ yi lu ne ngeen bëgg dugal teraxe diine yi lu ne ku si def dara rek nga bëgg a dugal teraxe diine yi et vous trouvez ça normal dëkk boo xam da ngeen ne yéen dëkku diine ngi muy chrétien muy musulman yi ku si def dara mais arrêtons beneen problème bi nga xam ne moom laa gis tout récemment c'est le problème de Astou 7TV xale bu jigéen bi exemple la joxe léegi gars yi ne ñoom dañuy jug dem tëj tele bi lii mooy woon ne Sénégal liggéey am fa parce que man je crois que ni liggéey boo amoon ku si nekk si ñoom boo amoon benn occupation ah doo dox foofu naa da ngay tëj télé yéen ñaata grève ngeen fii def waa université yéen boo leen grève xanaa maire yi di jaay foofu noonu si mbedd mi wala nit ñi nga xam ne ñu ngi si mbedd mi ngeen di déranger wala benn nit yoonam nekku si war a dem yéen porter plainte parce que yéen te pourtant chaque jour ngeen grève kenn mësu leen porter plainte il faut que ñu arrêté di nax suñu bopp lu ñuy xeex nañ ko xeex waaw li jar a xeex li mat a xeex nañ ko xeex Jamra gisuma la nga jug fi def marche bi ñu reyee xale bi tàmba gisuma la meurtre yi nga xam ne ñu biir Sénégal gisuma benn Jamra jug dem def marche bu ñu waxee ngeen créer seen association ay Jamra ay nitu dëgg ak ay lu ne il faut ngeen dund seen dund ngeen am seen loi bopp ngeen def ko si seen comité boobu loi boobu noonu nit ki boo ubbee association loi bi si seen comité boobu lay def léegi ñeneen yi ñoom am nañ beneen vie am na yeneen loi yoo xam ne ñoom moom la ñuy am seen kër léegi nag leneen loi li nga xam ne mooy loi gouvernementale ñun ñëpp ñu ànd respecté ko mais je crois pas que ni am na loi gouvernementale bu ne war ñu teg série boo xam ne war nañ si wax li ban loi moo ko wax kon ça veut dire que ne yéen a ngi si tort bu leen foog ni seen bu ñu leen joxee dëgg ça veut pas dire mooy dëgg parce que ñu ngi koy seetaan 2 millions de personnes yooyu da nga leen laaj seen bu fekkee wax dëgg fa yàlla neexu leen xam naa duñ ko seetaan parce que je crois que ne bu ñu bëggee bu ñu bëggee yàqal nit wala bu ñu bëggoon boycotté dara dañ koy boycotté. kon ça veut dire que il faut qu'on arrête il faut ngeen bàyyi nit ñu liggéey parce que si Marodi boobu ngeen di wax Evenprod boobu ngeen di wax à part les acteurs il y a des qui travaillent là-bas am na ñoo xam ne ay scénaristes lañ am na ñoo xam ne ay monteurs lañ am na ñoo xam ne dañuy téye sa lampe ñooñu ñëpp salaire la laal te je crois que ni képp koo xam ne yaa ngi def série di nga bëgg loo jaay sa série te boo bëggee jaay série il faut nga am audience te boo am audience il faut nga sponsor yi ñëw te sponsor yi du ñu dem di di di sponsoriser ko amul audience. may leen artistes yi ñu liggéey may leen artistes yi ñu liggéey nee naa leen artist boo ko joxee limite rek du dox moo tax Sénégal doo da yow je je je prends l'exemple il est le meilleur kenn weddiwu ko mais ban prix la indil Sénégal Cheikh Tidiane Diop ban prix la indil Sénégal te loo xam ni international du dox. kon léegi ñi ciy liggéey nii ñi nga xam ne instant dañu bëgg dem liggéey nekk ay ay acteur wala nekk ay scénariste wala nekk ay dara ñoom dañuy dem noonu pour taxawala quoi jàppee ko passion sans pour autant am si gain boo xam ne mën nañ si dundal seen famille série Sénégal yi temps yi la commencé génn biir Sénégal jamonoy un café avec la commencé génn Sénégal mais à part un café avec ban série moo génn Sénégal ban film cinéma lañ teg fii Sénégal ban film la xale jeunes yi bëri xam ñen ñoo ko def parce que cin cinéma nga xam ne loolu la nit ñi soxla duñ ko teg sax télé parce que ku jug rek wax ku jug rek wax ku jug rek wax lu ñu wax rek ngeen ne da ngeen di censuré quoi yéen daal censuré jël def ko seen làmmiñ bi rek ñu liggéey ngeen liggéey seen liggéey je a d'autres chats à fouetter au lieu naan da ngeen di plaindre jug leen ngeen marche def noonu loolu Sénégal yëpp dañ leen si gunge marche rey nit amul marche xale jigéen yi baaxul marche prisonniers yam dañ leen di tëj sans pour autant ñu def dara baaxul mais ngeen topp di marche ay ku si wax ne nitu dëgg la wala nga ne comité nga rek si ay série ngay dem marche wala nit ki dugg fii di wéy di nga artistiquement parlant nga ne da nga koy yàqal yow kooku da xam nu mu nekkee dëggantaan si laay fa il faut qu'on arrête quoi gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi en tout ma participation j'espère que ni toujours damay ñëw ak wax li nga xam ne man loolu laa sentir te damay wax dëgg na xëy na dëgg mooy dëgër maa ngi jégalu si weeru koor bii nii mais fallait que ma wax quoi il faut que des fois tamit sénégalais yi jug di défendre li nga xam ni euh, moom moo fi nekk waa man moom Golden Golden bi bi mu amee problème ak booy Ndaw yi booy Ndaw laa défendre Marodi dama ko clash mais fii wax dëgg fa yàlla man je suis kon pour pour Marodi nekkuma pour ay Jamra parce que cinéma Sénégal dafa war a jëm kanam musique Sénégal dafa war a jëm kanam xam nga Sénégal avancé parce que loolu noonu bokk na si liy avancé loo Sénégal mais mënuñu ko téye ba pare di di def yeneen affaire yoo xam ne en tout cas je la la solution est bu fekkee da ngeen bëgg dugal film yoo xam ne day éduqué def leen seen scénario ngeen dugal ko point barre. gars yi vidéo bi loolu la Lord Wes la woon ak yéen ah salaamaaleykum